gis nga bi Seex bi Sëriñ Tuubaa gaañoo 1927 ba tey 14 régions yi région bu ne mënoon naa am 10 université murit ya ko moom Sénégal du ko moom murit ñoo ko moom nga xam ne da ngay judd ñu jàngal la al alquran jàngal la alphabet nooy xamee anglais ak français yooyu ñu jàngal la mbay soo paree di bay loo dundee tey sant Seex Ahmadu Bamba mais mbàkke mbàkke bi moom day noos di xoddamteku di xoggaleku di lekk ba suur di naan ba màndi yow ngay gën a wala di ko gën a jox saa yoo xewlee mu am jot jaar fa tëfli la nga ne ci barkeb sëñ bi laay barkelu te këram a dàq sa kër ñun ci barke yonantu bi la ñuy barkeloo lii ma sanc tey saxaaba yi amuñ ko woon ci barke yonent bi laa nekk ba nekk Amérique di wax ngeen may seetaan yëpp ci barke yonent bi la waaye barke sëñ bi lu mu la jëriñ feebar doo mën a faju da ngay dawaat sëñ mu faj la donc politique économique yi tarixa yi waroon a jouer Sénégal defuñ ko waaye politique pouvoir bi ñu waroon a def mooy bi tubaab bi waxtaaneeg Senghor ba pare ba mu bàyyi fi lim fi bàyyi ñun bu fekkoon ne décevoir suñuy mag ñi ci xalifa yi nekkoon ci réew mi bi indépendance bi am ba tey mënoon nañoo jëlaat askan wi joxaat ko lislaam parce que ñoom yomb na da ngay yar sa nit dugal ko administration mu nekk njiitu assemblée nationale mu tourné carte gi ne ñun bëgguñ constitution député yi woote ko ñu indi alxuraan léegi la liggéeyal yàlla gën a yomb ni ñu France nootee ñu xaritoog ñoom nga génne sa loxo ci France xaritoog ginne gi nga xam ne ay jullit ak fa xaritoog Gambie Gambie bëri na ndox am port bu fa nekk di indi Sénégal Sénégal am lu muy jox Gambie économie bi dox soxla woo keneen mais balaa ñoo mën a nekk dëgg dëgg dëgg ñu ne mais courant courant quoi courant les les cinq Corans pour wax al Quran sax pour yow déggoo français sa diplôme day yàqu donc génn leen ci naafeq gi ak naxante gi xoolal ibaadu yi ci lan leen ne jàng jàngale tabaxi école suñ xale yëpp ibaadu yaa leen jàngal buñ màggee nag topp ibaadu yi ci liñ ne nga ne leen danga nga rékkeeku da nga xalku waaw sëñ Tuba amul morom bàyyi sa fi ne Maw Maodo kenn du moom Maodo kenn du moom d'accord mais kan moo ñu ko wan kenn ak Maodo. Maodo baax na jikko yim fi bàyyi ku ko roy waaye bala ñoo mën a xam ne am nañ sëñ ñu taal micro bi waaw sëñ bi mu ngi bind ci classe Saab nee na <laughs> li bi bindoon sentiment am la ci yonantu affaire naa fexe yegg fa mu yeggoon ba am sentiment boobu ci yonantu ba su ma jooyee mbëggeeli yonantu sallallahu alayhi wa moo ma jooyloo ba su ma bindee mbëggeeli yonantu moo xajatul ci dënn bi ba fu ma nekk yonantu wettale ma loolooy kaabe waaye du nettali waxi Maodo ni ñu bëggee yonantu ay folklore mbir mi dëgg mooy fa Maodo yéegoo nekk fa nëbbut la yoon bi wax na la ko jaaral foofu mel ni Maodo fi góor yàlla gi tolloon ba ne wa huwa unsi wa huwa kanzi wa anini wa amaani yeggal foofu yonentu toll la foofu beneen bi ci des nan ngeen war a nangoo nekk ay imbécile lan mooy imbécile imbécile mooy sa maam daan topp benn sëriñ sa bàyyi di ko topp nga topp ko ba mag te xamoo yàlla xàmmee woo yàlla yow bu sëñ bi demee dootoo dem loolu imbécile dëgg moo ko war a nangu parce que sëñ bi du destination finale sëñ bi jaaro waaye la yow premier bunt bi sab maam ci la nekkoon sa baay ne ci nga nekk te jàllo ba pare ne sëñ bee gën yeneen sëriñ bu gënee it gënu ci yow kon daal tarixa yi dañoo décevoir le vrai sens du tarixa ñii nekkal fi tarixa yi ñii dañoo décevoir borom tarixa yi waaye comme senegal la lislaam jooy ba daw ba génn réew tarixa moo ci topp xoolal faydu ibrahima bi maanaam boo bëggee ñu xamal na yàlla xam yàlla bu sell sa da ngay sonn ñeseen yu bëri nga xam ne macha allah dañuy am tar koo ci ne jàkk gis baay jëluñ mbir la sa bay tar bi te koo ci dàq ñaar yoon mu ñibbi ci baay ñes te boo amee teraanga ci baay liggéey ci faydu ba mel ni sang njaay ñu njaay sant yow nii woon murit nga woon nangam mérité woo dara ah bi sang njaay di bàyyi njaayanam ñëw ci ñes gi bëgg baay ñes muy dëgg ci moom foo ne bi Cheikh Mamour Insa di bàyyi jóobam gi ñëw ci baay ñes foo nekkoon bi Cheikh Abdou Ndaw di bàyyi ndawam ngi ñëw ci imaam Hassan Cissé foo ne yow yaa ngi tëdd ngir doomi diw nga jëloo wird jëloo tarbiya doxoo seydu xamoo dara ci yàlla ba pare na ñas nga sant mbir mi du sant konoon Cheikh Aliou Cissé du doon bàyyi mbir mi du sant konoon Cheikh Ousmane Ndiaye du doon bàyyi mbir mi du sant konoon Cheikh Oumar Touré du doon mbir mi du sant konoon maam Ramé Fall du doon bàyyi mbir mi bu doon sant képp ni maam sëriñ Mbaye Niass doon nee bàyyi maam Ahmed Aminta doon ko bàyyi doomu Alaaji Abdoulaye mi bokk ak maam Xalifa Ndeye Ba kooku koy Ahmed Aminta donc en tant que sëriñu nandite yi dama bëgg ngeen doon ay nandite man gis nga ni ngeen may gis nii kenn feesul suma kanam dara rëyul ci man ndax gis naa ku may saaga man sëriñ bi tax ngay xëlëf xëlëfi moom buñ tasee woon moom du sigi xool ma ndax xam na suma baatin xam naa insaani yëtoo te yéen euh, seetlu leen ne sëriñ bu baax bu ngeen dem fekk fa si ngeen di waatee bu santul Mbàkke santul si ñas la sant ñu ngi ñaan la di wut bayra ñu ngi koy wutee di wut wërsëg seetlu loolu sëriñ boo dem ci Sénégal mu mën a ñaan boo fa toogee Mbàkke Mbàkke fekk la fa boo fa toogee ku jógee Tiwaawan wala Medina Baay fekk la fa ah waaw yow nga nag nga ne kooku nga yaakaar ba jàngoo liggéey génn leen seen caaxaan yi kayit yaa ngi fi waaye baate ni néew na de masala yaa ngi fi waaye jëfee ko ba am sirru masala yi jëfe la xam ngeen ne moos réew mu mel ni Sénégal su demee ba ñu ne Mame Makhtar Gueye mooy xeexal l'islam kon l'islam ràpp na senegaal da ngeen di jub di xeex lu dul dëgg te bu leen ci am ku ngeen di rus bu leen ci am ku ngeen di seet bu ngeen ci am ku ngeen di seet xeex leen ko te yàlla tax ustaas yi doon wax yépp ci man ci télé yi fu nañu tàllal maa ngi leen di déglu te dama bëgg yéen nante ngeen bàyyi leen xel ndax bu ëllëgee ñoom ñi nekk Tiwaawan yépp doon wax ci man bu sëriñu Tiwaawan juumee dineen ci wax nañ doon waxee ci man ak ton bi ndax dineen ko porter plainte bu fekkee déedéet rek su boobaa loolu par parole te lislaam amut loolu hmm. moo tax mu doon diine ju sell te baax kon daal tarixa ni ñu di dundee ci senegal léegi baaxul ci askan wi baaxul ci économie bi baaxul ci réew mi kon war nañoo woote dakkal tarixa ci Sénégal bu fekkee ne mënuñoo soppi dundee ko ni taxoon ñu ne tarix neen ko dakkal rek parce que lu amul njëriñ moom amul njëriñ tarixa tijaan moom tarixa madul fadli wa ridwaani aussi sa bi sunnati wal furqaani tarixa muridiya santi yàlla képp la tarixa xaadiriya mooy njëlbeeni tariqa taaru lool jóge ko Cheikh Abdou Qadir radiallahu anhu faydatu ibrahima bi moom bu amutoon fuñ jëm waaye buñ ko mënta dundee ni mag ñu sell yi daan ko dundee ak yoon yi ñu tëral neen ko arrêté ndax ñii ma gis ñuy mbubboo tariqa dañuy fen maag ñoom nekkuñ ci benn dëgg bu ñu wootee màggal mu fees bu màggal jeexee muridu duñu fees jumaay buñ ne journée xasida eh, kenn du am jàmm te buñ ne alxuraan mu ni ay muumaa dëkk same thing applies to faydatu Ibrahima ñaata kaamil leen wax ne moom la ñuy wàccee Medina Baay ay benn kaamil bu nangu buñ ko xamoon ñu xam ne junne kaamil du caaxaan wala Tiwaawan moom xale yu bari léegi ay ibaadu leen ñi taalibe Baay ñi dem leen murit lan moo tax doxilinu maam Abdou dafa manqué lan moo tax taxawinu Cheikh Aboubacar Sy si anhu dafa manqué lan moo tax politique ak stratégie Maodo amatu fa.